di def ak ña demoon jékki-jékki euh, noos ba ba ba mu neex leen ñu ne dañuy dellu si waat nan ngeen di def ak ñoom ah, xanaa xanaa ñooñu du ñu ñëw falax ñi ñu fi ñi ñu fi bàyyi woon ñu ñu toog di muñ ñi dañuy occupé waat même place yi xam nga d'abord loolu mooy euh, poser la question très négativement parce que ñu ñoo woote ñibbisi ku woote ñibbisi doo booba xënte doo tëj bunt waaw mais kii ñëw bu ñëwee tamit xanaa du nii fa ma occupé woon bala may dem di noosi di transhumé bu ma dellu see fa laay occupé waat encore du ma jublu ci façon wax boobu oui xam nga wolof dañuy wax ne bésu juboo kenn du nettali xeex ak xulo ma yëgal leen rek benn affaire bu gàtt que ci sunu kër yi ci sunu entreprise yi fekkee nañu plusieurs fois xuloo bu metti entreprise ouvrier bu ñu dàq bu tooñ wala mu tooñu mu waxaat ku mu dellu si ci sunu kër yi la même chose am nañu rakk wala mag wala ndijaay bu gedd dem ñu fexaat mu dellu si l'essentiel aujourd'hui c'est que réew mi ñuy wax Sénégal 1960 ba 2000 am na lu fi am mais ay la yoween 2000 ba 2012 ak 2012 ba 2022 liñ fi def ñun ak li ci Macky Sall dolli moo gën loolu Hmm? non je pas ma ne réewu Sénégal. ci tolluwaay. waaw fi ko Abdou Diouf bàyyi. bu ko fa Abdoulaye Wade yemaloon mu naqari. waaw wala mu gën a naqari. Mhm. mais daf ko yokk partout. waaw am loo xam ne sax beesil la ci ba ci fi ngeen toog nii. waaw le fait l'information la presse les libertés. oui Macky ñëw. am lu mu ci def ba deux mille vingt deux waaw bërki démb mu waxal ko boppam waaw wante woon léegi est-ce que ñun dañuy tasaaroo wala dañuy seet lu ñuy àndee te loolu ñun wax nañ ko bu yàgg ñun ñibbisi bi du bees ñun 27 juillet 2013 la Ablaye Wade bind kayit bu mu tuddee la reconstruction de la famille libérale wax naka la ñu mën a def ba àndaat di liggéey ci ci jàmm.